dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo dialogue politique beeg national bi xëy te tudd arrêté Ousmane Ngom bi lu jafe la kaay gi mu ñu xamal lan ñu jamonoy Abdoulaye Wade ak Ousmane Ngom ba mi nekk ministre de l'intérieur ak arrêté bi ba ñu ko fa ëndee ngir nag bañ képp koo xamante ni daal di nga amal ay manifestation ci biir Ndakaaru la jege palais place de l'indépendance yéenekaay gi mu ñu xamal lan ñu moom réew mi quotidien Ousmane Ngom jamono joojee li mu nekkoon ministre de l'intérieur tax na arrêté bi ku ko tudd sa xel dem ci moom ba ñu koy woowee arrêté Ousmane Ngom journal bi mu ñu xam xamal naan ñu ci lu bett nag sénégalais yu bare bare moom Ousmane Ngom moo jekk-jekk ne Poymet daal di génn di défendre boobale arrêté di wax ne ordre public bi dañu ko war a daal di respecté kàddu yooyu nag tax Assane Samb directeur publication réew mi quotidien xëy jël xalimama di wax ne Ousmane Ngom daal li nga xam ne moo ko waroon mu daal di noppi waaye daal na sa yokk sax ne Macky Sall nag ku foor la ndax bëri na ay intellectuel ci réew mi bëri na ay homme de valeur bëri na ay nit ñoo xam ne Sénégal yi nawoon nañ leen lool ñooñee ñëpp nag Macky Sall tax na Sénégal yi mujjee leen a jëppi ndax ànd gi ñu ànd ak Macky seen kàddu yu démb méngoowut ak kàddu yi nga xam ne jamono ji moom la ñuy yëkkati teg si di wax ay kasaw-kasaw wax joo xam ne amul bopp amul genn maanaam mënuñu ko méngale sax ko wàcc woon daal di koy lekkaat te loole lépp Macky Sall moo fa jaara bëri na ñoo xam ne nawoon nañu leen jamono ji Macky Sall tax na ñu daat leen di jëppi yéen gi di ko di Quotidien mu ñu xamal la ñu arrêté Ousmane Ngom boobee sax bokk na ci loo xamante ni ak déggoo ñàkk naa am ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje gi ak ñi nekk ci majorité bi ci dialogue national ba journal bi sax yokk ci article code électoral observateur mu daal di xëy ci bor yi nga xam ne Sénégal amee na ko bi ñu ko xaymaa toll na ci neuf mille milliards la Sénégal amee ni bor taxawaayu FMI nag loolee mën naa yàq ay projet Macky Sall journal bii di réew mi quotidien ak Vox Populi xëy nag dikkal ñu ci autopsie bi nga xam ne def nañ ko taalibe bii di Abibou Camara mi nga xam ne dañoo njort ne ki nga xam ne mooy ab sëriñu daara moo ko dóor ba mu faatu ca diwaanu Louga ginnaaw bi ñu defee autopsie bi nag la mu wane mooy taalibe boobee di Abibou Camara dañu ko daal di dóor ci bopp yéenekaay gi mu ñu xamal ñu sëriñu daara ba nag maanaam ma ngi ci loxol yoonam yërekaay gi du l'observateur ñu fekk fa Maguette Sène mi nga xam ne moo jiite maanaam direction matériel transit administratif lépp loo xam ne jëm na ci wàllum oto ci administration bi la mu xamle at mu jot rek danañu jël lu toll si juróomi milliards daal di koy réparé ay oto yërekaay gi di réew mi quotidien moom ti muy daal di xëy teg ab liste ñi nga xam ne ñoo war am oto ci administration bi ak ñi nga xamante ni ñoo ko am ak li nga xam ne moom la ci loi bi wax loolu lépp ma ngi ci journalu groupe promo a kaay gi mairie bu ndakaaru bi nga xam ne jamono ji coow li daat nay bëri waaye nag moom journal bi la nga xam ne daal moom la ci gis ak ñàkk déggante ak juyaloo bëri goo xamante ni daat na say am ambassadeur bu États-Unis Abdoulaye Wade daan na koy recevoir journalu groupe promo consulting bii ne Abdoulaye Wade nag jamono ji saa sunu xëyee muy yokk di recevoir ay nit ñu baree bari ca këram ga nga xam ne jamono ji falay daal di dalloo ba tey ci biir journal bi mu ñu xamal na ñetti yoo xamante ni ca Soumbédioune ba léegi ni daal dañoo réer nekki nii daal maanaam tegaguñ leen loxo journal bi du l'observateur xëy dikkal ñu ci Pape Alé Niang mi nga xamante ni bërki démb moo njaay daal ni fii génne ab livre turam daal di fës loola journal bi nag nee na nit ki démb daal ci corniche bi moom Pape Alé Niang dafaa def ab accident waaye nag jamono ji ma ngi ci ab garde à moom journaliste bi la nga xam ne moom la koy toppee nee nañu dafa màndi ba pare di dawal loole nag moo tax ñu daal di teg loxo yéen a kaay yóbbu yéen a kaay gi de moom nag di xëy di wax ne mbaadu bu xaabay Cheikh Omar Anne yi ñoo nag daal di dal ci kaw Pape Alé Niang journal bi xëy samp ci ab laaj ndax ci fàttali Pape Alé Niang génn livre bu tàng-tàng ci Cheikh Omar Anne mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon li nga xamante ni mooy kuddu yéen a kaay gi ba tey daal di xëy nag wax ne tey jii ci àjjuma ji daal nar naa nekk réunion bu tàng-tàng diggante Macky Sall ak ñi nga xamante ni ay àndandoom lañ nekk ci APR ndax Macky Sall tey jii ci ngoon da leen woo ci ab réunion jamono joo xamante ni nag maanaam ñu bari ñoo ngi tuumal ne dafa am kilifa yu nekk ci APR di ki nga xam ne maanaam mooy Macky Sall bu ñu sukkandikoo nag ci la témoin ak rumeur yi ku ci mel ni Aminata Touré mi nga xam ne moo jiite conseil économique social environnemental ak Makhtar Cissé mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum énergie ak Aly Ngouille mi nga xam ne moo nekk ministre de ak Amadou Ba mi nga xam ne moo nekk ministre des affaires étrangères ñii daal bëri nañ lu ñu leen dañuy roga jeeru li Louga bi ñuy siim seen mari ngaañi takk der yi teg leen loxo jamono ji ñoo ngi ci kaso bi yéen a kaay gii di Dakar Times xëy nag daal di wax ci Jeux olympiques 2022 yi nga xam ne dañu ko war a organiser ci Sénégal Jeux olympiques yooyu nag Sénégal warul nag teg gàcce benn yoon communauté olympique mondiale bi Sénégal war naa mën a gagné ay koppar yu bëree ci moom leen daje bi mu ñu xamal lan ñu njiitu réew mi di moom ci boppam xew-xew boobu leen tuddal amuñu benn xam-xam bu jëm ci wàllum tàggat yaram te bu ñu ko yàqee nag loolee gàcce dëgg lay doona yéene kaay gii di la sa xëy nag dikk ci xeer wu njëkk wi nga xamante ni ni ki démb teg nañ ko sa jam ñaajo ci lu jëm nag ci stade olympique bi njiitu réew mi di président Macky Sall moo jiite woon boobalee ndaje moom njiitu réew di président Macky Sall ne stade bi nag daal ne dëppoo ak bëgg bëgg Fass laas yéene kaay mu ñu xamal la ñu ni ki démb république bi ñoom nag ñoo fa daal di daje waaye nag caaxaan yeeg foo mi ak mi bëri woon na fa loola journal bi di grand place mu ñu xamal la ñu stade bi nag juróom-ñaar ci ay weer maanaam la ñu koy daal di liggéey stade yéen kaay mu ñu xamal nañu la ñu sa def ni koppare toll na ci cent cinquante sept ba tey ci biir journal bi mu ñu xamal nañu Sénégal nag war naa futbal ak réewum Guinée waaye nag jamono ji daal Sénégal ci biir équipe bi bari na ñoo xamante ni dañoo gaañu ñi si des nag jamono ji nekkuñu ci forme